madame Nina Penda Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay di nuyu seen auditeurs yépp waa réew mi. Ah, soxna si euh, tey euh, li ñu duppee scandale Miss euh, Sénégal dafa mel ni mbir mi day gën a jéggi dayoo ndax plainte yaa ngay ñu ngi koy dégg fu nekk tey jii ñu dégg ay jigéen ñi nga xam ne ñoom fas yéene nañu déposer plainte jëmale ko ci ndoddu ki jiite comité bi ñu bëggoon a xam lu waral plainte bi. Ah, plainte bi li ko waral mooy li nga dégg. Mhm. xam nga tubaab danaan y a pas de fumée sans feu. Mhm. te wolof danaan euh, saaga yàkkamtee xeex la. Mhm. plante bi lu war la parce que bu ngeen déggee kàddu yi nga xam ne bëgguma ci sax dellu si waat. Mhm. moom la présidente comité bi wax. yow nga ñaawlu ko. di jigéen ñaawlu ko. boo amee waajur mu ñaawlu ko sa càmmiñ lu ko. te ñu nekk ci réew moo xamante ne jigéen ñi ñu ngi def. cinquante et un virgule huit pour cent ñun ñoo ëpp ci réew mi ñun ñooy fal ñooy fol yi ñun ñooy jur mhm. ñun ñooy yar ñun ñooy dem ñooy dikk ci njaboot gi waxuñu ne góor ñi defuñu ko wante ñun suñu wàll ci jigéen ñi te lu xew ci kër yi lu lu njaboot bi mel ñu ne jigéen ñi mhm. mënuñu toog di déglu suñu moroomu jigéen suñu naataango suñu sœur di wax yu mel noonu mhm. te mu nekk responsable ñu dénk ko suñu njaboot donc dénk ko suñu ay doom yoo xamante ne dañu ñëw pour bokk ci benn concours boo xam ne dafa war a sargal jigéenu Sénégal. Mhm. wane lépp li mu am ci rafetaay ci xam-xam parce que yemu rek ci rafetaay ci xam-xam. Mhm. ci li ñu bëgg réew mi ndax loolu moo tax ñu di ko organiser. yaa ngi may dégg. Mhm. yooyu bu amee nag mënuñu dégg kàddu yu mel noonu ñun ñu toog noppi te suñuy yaay ak suñuy maam ak suñuy maamaati maam. jigéen xeex ci réew mi dañu mhm. toll ci deux mille vingt mhm. ñu promulgué loi boo xamante ne dafay daan képp koo xam ne dafa siif muy jigéen muy góor mhm. ñu koy wax loi bi nga xam ne day criminaliser viol ci Sénégal président Macky Sall ànd ci ak jigéeni société civile yëpp nga xam ne ay ati ati at ñu ngi xeex dañu am loi bi assemblée nationale def ci liggéey bu rafet société civile ñu gàcce ngaalama ci AGS mais bu buñ ci gàccamay ngaalaama AGS gàcce ngaalaama yeneen organisation yëpp yi ci dugal seen loxo ba mu sotti mhm. ak jigéeni anonyme yi si dugal seen loxo di dem ak ñëw ba mu sotti ba ñu am loi mhm. ñu am loi buy criminaliser viol ba pare ñu dégg lu wax bu mel noonu boo xam ne kawteef la dégg ñun ñëpp a ko déggandoo naqarlu ko ñu ñëpp ndax xam naa ne yow mii di ma woo tey di wax ak man di ma laaj mhm. naqarlu nga ko ndax jigéen la am nga rakk yu jigéen mm. wala am nga wayjur boo xamante ne bëgguloo lii ñuy wax ne yoon mu dal ko mm-hmm. ndax maare day taale maare day ñaanuñu yàlla suñu noon bi ñu suñu noon mm-hmm. bi nga xamante ne boo ko seenoon muy ñëw nga wut yoon boo jaar ndax bëggoo moom mm-hmm. mu dal ko ak sama ku la jeg dëgg te nag dañu war a xam ne réew mi ñun ñoo ko war a defar te defar bi dafa dafa tàmbalee ci jigéen ñi ñu jox leen seen seen àq ak seen yelleef bàyyi di leen mettital réew mi gis nañ fi ñuy rey jigéen violé ko ba pare faat ko. Mhm. gis nañ fi ñuy violé di siif suñu doom yu ndaw yoo xam ne fukki at juróom-ñeenti at ñetti at. fi gis nañ ko fi ba tàyyi mhm. xam nga loolu yàq àddina yàq àddina yi way juróom ñi nga xamante ne dañu amoon ci maam yaakaar mu gane àddina ñu mhm. war ko toppatoo ñu ñu def ko ñaawteef yu mel noonu loolu ñun ñëpp dañ ko war a xeex jigéen ak góor nag laa ci yemale ndax njaboot ñu ñoo leen seq Mm-hmm. loolu mënul am nag ñu toog croiser les bras di seetaan. dëgg la te nag ñu def ko pour que ñu kuy waxati. Mm-hmm. ci mbirum siif ak ci xeetu façon yi mel noonu ak mettital yi ñuy def jigéen ñi. Mm-hmm. surtout siif nga xam loo ciy wax. ndax am na wax yoo xam ne boo koy waxee waxee da ngay dooleel ñi nga xamante ne ay saay-saay lañu nekk ci kër yi nekk ci réew mi. yàkkamti wuñ dul di gis jigéen boo xamante ne néew la doole ñu faagaagal la. Mhm. tey looloo tax plainte bi jóg. d'accord tey plainte bi euh, ngeen koy amal gannaaw nag bañ déggee ne yëkkati na moom it plainte teg ko ci ndoddu euh, kenn ci adminu euh, femme chic yi ndax dafa am relation plainte seen plainte bi. waaw du admin bi rek parce que contre X la ak admin bi ak suñu beneen càmmiñ. Hmm. boo xamante ne plainte yi plainte bi ñoom la ñoom la kii. ñoom la ñoom la visé wante eh, eh, eh, dama la wax sànq nela la wolof nee na saaga yàkkamti xeex la mm-hmm. ndax xamoon na xel ni ne lu ñun avant li admin bi ñuy wax ñu koy nu mu tuddat muy déposer plainte mm-hmm. ak muy def live bi mu def ci réseaux sociaux yi mm-hmm. ba wax bi jibee te moom dafa jibal wax bi ba pare quelques heures après mu daal di ne day jéggalu mais ba mu waxee wax bi ba pare ñi ci waroon a jot jot nañ ci ba pare. Mm-hmm. <laughs> da bàyyi jaan mu romb ba pare nga topp ci gi kii bi di dóor mm-hmm. ci watat di dóor mënta ne mm-hmm. donc doo wax wax bu mel noonu ba pare ba nopp yu baax yéeg yu bon yéeg saay saay yéeg ñëpp jot ci nga bëgg dellu ci ginnaaw ni jéggalu nga waa jéggalu nga mais li nga wax ba wax bi jiitu na la ba pare la la waroon tey mooy nga xalaat xool li ngay wax ba pare bañ a topp sa xol mais topp sa xel laajte ña nga war a laajte conseil ba pare door a jàkkaarloog média yi di wax ak ñoom ci mbirum li nga xam ne moom mooy siif te mu am loi boo xam ne da day daan képp ku ko def. d'accord loolu moo jiitu plainte bi. plan ñun avant lool di am de toutes les façons jigéen ñi nga xam ne ñëpp métti nañ ko. Mhm. ak ñi bokk ci yenn organisation ak ay anonyme mhm. ay individualité génn nañu gis nañ leen ne leen ni lii ñu ko bàyyi mu sedd ndax buñ ko bàyyi mu sedd mooy danañ encouragé keneen mu def lu raw lu mel noonu Binta Camara mu ngi fi yow marche wooloo woon te mhm. Binta Camara. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne def nañ fi lu xamante def nañ leen fi doo xamante ne métti nañ ko ñaaw nañ ko te loolu moo indi ñu promulgué loi bi. Mhm. président Macky Sall jàppale si jigéen ñi Afrique Sénégal ñëpp ñu leen di laaj nan ngeen def ba mën a am loi buy criminaliser viol ndax viol li nit ñi xamul mooy arme de guerre la ci yenn réew yi. boo bëggee moom nit ki yow moom moom moom ko da ngay jaar ci ay jigéenam gis nañ fi Congo gi gis nañ fi yeneen réew yoo xamante ni jigéen ñi dañ leen di violer. Mbarki Demba Ndiaye seen àddina yàqu Guinée Conakry ngi nii ak feneen ak feneen ñun bàyyiwuñu Sénégal ndax Sénégal gis nga féminicide moo fi am da ngay siif ba pare rey nit ki. ndax bëgguloo mu boole la wala mu rëcc ñu jàpp la tëj la ci kaso bi. Mm-hmm. léegi nag bu plainte bu mel noonu tegoo pour que ñu aartu ñi nga xamante ne sax amoon nañ xel ñaaw ne lii kat. lu ñu war a la du lu ñu war a encouragé ndax kàddu yi boo ko déggee da nga naan kii day encouragé lu mel noonu ndax ni mu ko waxee ak viol boo koy wax dafa am kàddu yoo war a mhm. moo yoo war a utiliser kàllaama kàllaama boo ko mënti waxee dafa am moo yoo war a utiliser pour nga wax ko ndax diis na diisaay boo xam ne mhm. kenn nanguwul kenn du ñaanal yàlla mu dal sa njaboot astamaak sa noonu looloo indi mhm. plainte bi te plainte bi nag li ñu suñu euh, rafet njort mm-hmm. ne buñ ko defee nekkul ne dañuy xaar ne nit ñi naan waaw dinañ ci teg seen loxo dinañu lii dinañu lële mm, amu leen tiitaange daal ñu am fuñ ko bësee maanaam fuñ ko fuñ ko étouffé dama ne ñun Sénégal ñun mm. réew mu nekk ci droit la ñu nekk mm. nekkuñu quand même dans une armée mexicaine dëgg la ci lu waay nekk neex def mm-hmm. réew mu am loi la ñu nekk yoon di fi daw d'accord ñu teg si am loi buy criminaliser viol ak pédophilie. Mhm. ndax siif bi tamit du jigéen ñi kese suñu doom yu góor yi tamit dañ leen di siif. loolu lu ñuy fàtte la te lu am la. ci fànn yëpp donc ñun amuñu dara lu ñuy tiit ci. Mhm. ñu bës si loxo wala ñu teg si conc wala ak lu ñu ko mën a tuddee. Mhm. li ñu xam daal mooy mercredi ëllëg incha allah ci kàttanu yàlla. jigéen ñi dinañu dem. déposer seen plainte ci procureur. d'accord donc. def na ñu bàyyi yoon def wàll wàllam. Uh-huh. responsabilité ku nekk jël say responsabilité. te ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk te kenn du ko xar di ko jaay ku ne jël sa wàlla dem sa yoon. <laughs> ñun ñoo fi war a mën a nekk nag defar ko. te defar bi day commencer si ñun jigéen ñu ñu arrêté di di faagaagal ak ni méttital ak di du daan def yu kenn xamul suñu doom suñuy moromu jigéen euh, mbir mi euh, ba mu jibee comme ni nga ko waxee coow li bëri na jóge fu nekk tey ay organisation euh, wax ne sax dañoo war a dakkal carrément lii di concours de beauté googule ndax ànd nga ci non man duma ne dakkal parce que man duma radicaliste mhm. li ma gëm mooy loo fekk mu nekk loo xamante ne <laughs> danga ne am na lu ci baaxul mhm. yow boo nee am na lu ci baaxul da am loo ci waral a lu yokk lu koy defar. dëgg la man loolu laa gëm man. defar bi nag mooy waxuñu ñu éliminer man boobu bu doon man duma ko éliminer. Mhm. mais li may njëkk def mooy képp ku ci seq ak di ci dugg di ci wax ak di ci dem ak di ci ñëw. Mhm. ci turu Sénégal parce que dañu ne Miss Sénégal danañ la enquête de moralité. Mhm. xam yaay kan foo soqe foo jaar loo def. balaa ñu lay dénk comité Miss Sénégal ngay organiser di dajale fukki xale ak ñeent yu jóge ci goxi Sénégal yépp mhm. ñëw pour wone taaru jigéenu Sénégal ak seen xam-xam seen jàmbarte ak seen pas-pas ak seen man mën dinañ ko xoolaat bu baax état bi nag def ci responsabilité mooy ministère yi nga xam ni ñoom loo concerné parce que Miss danga nga nekk ambassadeur réew dafa mel ni artiste buy dem di yegg foo xamante ne président Macky Sall yeggu fa. Mhm. ambassadeur la. te nag nañu fàttali ko si jamono yi nga xam ne ñoo moom la ñu wees am nañ fi miss yoo xam ne nekk nañ miss Sénégal nekk miss CEDEAO nekk classé dixième miss univers. univers mhm. man ma man ma am ci nag lu ma xam loo xamante ne ndax ku ma jege woon moom nekkoon na miss Sénégal way juróom yi encadré ko topp ko mosuñu ko bàyyi. ba moom mu def li mu ci war a def yëpp pare sacram dem lijjanti àddinaam am nañ fi ay miss yoo xamante ne tey ay royutaay lañu mhm. te majorité bi la nag ndax ci réew mi lañu bokk nekk ay ambassadeurs donc lu mel noonu boo koy def kuy porter sa drapeau mhm. dañu ko waruñu ko caaxaanee bàyyee ko ak ay nit ñoo xamante ne xëy na xamuñu sax lan mooyu porte mission bi ndax mission la war a tànn benn jigéen ci Sénégal nga ne moom moo dàq ci jigéenu Sénégal yëpp. Mhm, mhm. mu war a représenter lii xam-xamu jigéenu Sénégal lii suñu njàmbaarte ak lépp lu ñu mën ci nekk ci ay valeur ci taax warul nekk ay nit ñoo xamante ne du ñu leen enquête de moralité du ñu leen encadrer du ñu saytu lu ñuy def man loolu laay wax dama ne duñu waxu man waxuma ñu supprimer. Mhm. ndax xëy na am nañu suñu ay doom yoo xam ne ñoom am nañu rêve nekk nii. te nekk mi terewul la nga nga defar sa àddina mhm. parce que bu la yaree fi ñu la war a yar teg la fi ñu la war a teg jàngal la lu baax nga xam lu baax ak lu bon mhm. fooy dem danga xam lu la fay yóbbu ak lan moo tax nga taxaw fa d'accord surtout ko da ngay dem pour représenter sa réew mhm. donc euh, li may laaj mooy li may ñaan mooy ñu encadrer ko ñii nag ñu dindi ko seen loxo parce que lii fi am nii dañ nañ ko dindi seen loxo kayit bi doon joxe ñu am attribut organiser ko nañ ko dindi seen loxo ba enquête leen ba xool leen ba pare bu ñu koy dénkaat keneen ñu dénkaat ko keneen koo xamante ne ay loxoom set nañu ñun loolu la ñuy wax. d'accord ñu ñëw euh, ci li nga xam ne mooy ces jours d'activisme ngeen fas yéene lancer campagne bi euh, lendemain seen plainte bi xeex ci lii di violence basée sur le genre lan mooy enjeu campagne wu ren gi. mais campagne wu ren bi dañu koy euh, topp ci campagne yi ñu doon def rek. Mm-hmm. ndax campagne yi ces jours d'activisme Orangez le monde. di wane ne dañu war a def lépp lu ñu mën suñu kéemtalaay kàttan mhm. dugal suñu loxo ngir réew mi mettital jigéen jeex fi jigéen ñi ak suñu jigéen ñu xale yu ndaw yi mhm. bu ñu bu ñu boolee loolu mu nekk loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko war a xeex chaque année mu am thème chaque année ñu ne ñun ci lii la lii la ñuy sukkandiku dañ du nekk loo xamante ne euh, li may wax mooy keroog dama dama ko damay bamtuwaat li ma wax bi ñu déggee wax yi jib mhm. dañu ne dañu ne saaga la ndax wax bi jib mhm. da ngay seet ne am na si jigéen ñoo xam ne Sénégal siif nañ leen mhm. ba léegi kenn déggu leen ñu wax ñu ngi toog noppi am na suñu doom yoo xam ne ñu ngi leen siif boo demee ci boutique de droit yi AGS yi kaa yi du fi jeex xale bu am quatre ans bu am trois ans bu am neuf ans fukki at ak benn fukki ànd ak at ak ñett ñeenti at juróom-ñeenti at xale bu ndaw nga yegg ci moom chaque jour ñu dégg ko journaux yi di ñu ko wax mhm. centre Koulibaly bañ fa demee daaw ànd ak UNIFEM ci campagne seize jours d'activisme fekk nañ fa xale boo xamante ne fukki at ak benn ñu yegg ci kawam siif ko mu ëmb ay seex mhm. kooku ana way juróom ak fu ñuy jaar loolu boo ko déggee nooy def sa xol du métti sa xol day métti donc loolu moo tax ces jours d'activisme at bu ne ñu ne ñaaxati nañ ñu parce que am na loo xamante ne ñu ngi koy xeex te génnagul ci réew mi te li ñu bëgg mooy suñu doom yi jigéen yi suñu yaay yi suñu sœur yi ñu mën di dox ci mim réew te ñu ne maa ngi ragal génn ndax amaana ma dajeek saay-saay boo xamante ne dana yegg sama kaw te dara du ko ci fekk mhm. te looloo tax loi bi jóg bu ñu mënee am loi bu mel noonu ci nim réew nag président Macky Sall gunge ci organisation yoo xamante ne depuis ban xam ci mille neuf cent yi ba juddooguñu mhm. ba ni ñu màgg ba tool nii ba am ay doom suñu yaay suñu maam yi ak suñu maamaat yi maam yi di ko xeer mhm. xeex at bu ne pour jigéen ñi du nekk ci seen àq ak seen yelleef ñu jox leen seen seen seen cër ci mim réew parce que ñoom ñooy fal ñoom ñu ñooy folli ku fi falul jigéen ñee la fal donc mënuñu bàyyi bàyyi mu jàll te li ma la wax mooy campagne bi enjeu bi mooy. Mhm. ren lu ñu defoon daaw benn ren dañ koy def ñaar wala ñett wala ñeent. parce que engagement la boo xam ne. du dañ lay jox xaalis wala ñu ne la kaay yaa fi gën a rafet yaa fi ëpp xam-xam moo tax dañ koy def parce que dañu gëm li ñuy def ne. Mhm. jigéen ñi il faut ñu am seen àq ak seen yelleef ba mu mat ñu respecté leen ci mim réew. jox leen seen gëdd jox leen seen àq ndax fii réew mi lu fi dox jigéen ñee ko doxal ku fi jug taxaw jigéen ñee la dooleel te nag jigéen ñi war a xam seen doole xam li ñu li ñuy peser. Mhm. ñu peese suñu bopp ba xam suñu poids lan la ñu di ko faire valoir fi ñu ko war di ko di ko yëkkati fi ñu ko war a yëkkatee. yëkkatee d'accord soxna si nii Nina Penda Faye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni euh, ñu ngi jéggalu bu fekkee kàddu bi am na lu si dëgër ak lu ci kile xadar la ak loo xamante ni dañ ko gëm. d'accord ndax euh, moom la ñu yàgg di def. Mm-hmm. avant ñuy nekk journaliste. di militer ci li nga xamante ne moom mooy. àq ak yelleef fi doomi aadama yi ci suñu réew. ñu ngi leen di jaajëfal yéen yéen tamit bu baax a baax di leen ñaanal yàlla.